koo xam ne taalibe Seydina Ousmane Sonko mu sell mi nga dama bëgg nga demal ma ci commentaire nga bindal ma ci Ousmane Sonko président 2024 laalal ma sem laalal ma abonné loolu rek ci seen chaîne les pro Sonko TV la ñu mujj a jot ca xibaaru Ousmane Sonko gannaaw ba mu defee li nga xamante ne mooy euh, conférence de presse jàkkaarlook jàkkaarloog taskatu xibaar yi moom yëkkati na ay kàddu rek jëmale ko ci mbir mi ndax kat euh, daanaka rek moom la mu gis du lenn lu dul dañ koo bëgg a faagaagal euh, ba du bokk ci élection yi deux mille vingt quatre yi ba tax na ma ngay woote ab rassemblement daan ne jeunes yi bu leen déglu kenn képp ku leen naan bu leen lii. ak laa euh, daanaka rek kooku buggul réewam mu nekkat élection yi li ci des euh, fukki weer ak ñaar la fukki weer ak ñaar yooyu nag dinañ fas yéene jàmbaarloo ak nguur gi ba li mu bëgg du ko fi amee benn yoon lépp luy sàcc détournement ak njuuj njaaj ñoom dinañ ko teg ci suuf euh, bu ñu jëlee réew mi ba tax na rek loolu moo waral seen bakkan lañ ci gar ngir mën a jël réew mi teg ko seen digg loxo daal di koy jubal ba mu jub xocc lancement appel ba mu woote nag tax na ba jeunes ku ci nekk jóg nga yaa ngay jël oto jubali foofa ca diwaanu ndakaaru njaay foofa ca yaraax nak ñu yem nemmeeku ne lii di affrontement yi sax daanaka commencé na fa entre les jeunes ak ñi nga xamante ni ñooy force de l'ordre yi kii di Macky Sall nag moom la ñu mujj jot ca moom mooy kat daw na wëqet daal di jubali foofa ca diwaanu France fa nga xamante ni fa la yaakaar ne fa lañ koy làqee waaye daal moom Macky Sall moomu lee ba mu yeggee ca France kii di Macron daal nee na ko dama chargé lool lool lool ñu xam ne nag kii di Macky Sall dafa taal réew Sénégal ba pare ne wëqet daw foofa ca diwaanu France fas yéene làqatu ji mu mel ni mbir mi daanaka doy na waar lépp lu ci mën mënti xew dinañ leen ko toppal bu baax a baax jërë ngeen jëf